dikkati na fi mu ne day cheikh at a génne tamit moo tax ña ngi koy tullee boor bu ne turbine yéene kaay ne ma cheikh yérim sekk lii wër bi mu duppee Macky Sall face à l'histoire daf caa nag waxal Ousmane Sonko waxal ci Seydina Omar Touré moom Seydina Omar Touré ne cheikh yérim sekk dama koy porter plainte la mu ma waxal ci téeréem bi amul defuma ko ab citation directe laa koy jébbal gannaaw moom Ousmane Sonko daal dina koy defal citation Ousmane Sonko naan cheikh yérim seck kiyétii turbine yéene kaay ne Ousmane Sonko yamu ca dafa jël ab dédicace boo xam ne moom cheikh yérim seck ko koo defal ci téere bii naan kon yow Ousmane Sonko ki teree nelaw président Macky Sall yëngal pale ba yow laa ko jox Ousmane nan stratégie la de ak feem la mel ni ku may neexal ndike yoo mag may yàq ndax la mu wax ca téere ba dara dara da caa amul moo tax nag moom Ousmane Sonko mu ne Cheikh Yérim sekk ci boppam la yóbbu ca yoon ngir mu daal di indi ay gindi ci wax ji l'info yéene kaay ne ga tàmbali na diggante Ousmane Sonko la Cheikh Yérim Seck Cheikh Yérim Seck ne Ousmane Sonko bés boo ma kalaamee yoon dégg daali ndax nag ci citation bii nga may yónnee danaa jël ni am naa ko ca la nga doon def ca corniche ba gambien ba fàng ci dëkk bi ndax nag benn exemple laa jël ci yow jaarale ko ci suite boti su ma doon wax ci yow ak ci say jëf lii wër laay bind Ousmane Sonko naan kon Cheikh Yérim Seck yow yaay ndax yow réew mi war nga fee xasum gor dëgg-dëgg ndax yow réew mi Cheikh Yérim sekk bu ñuy wax ci waxi mër su war nga caa àddu Ousmane Sonko naan kon da ngay muus muus waaye naan nan la da ngay xas-xas lu président Macky Sall fekk ay adversaire am nga bëgg laal lii ci boppam lan nangu tey duñ ko nangu ëllëg citation baa ngay ñëw toogal xaar ko tribune yéene yéenekaay ne ma booba Ousmane Sonko day ñu ngi koy tàbbil ci procès yóbbu nañ ko nag ca chambre criminelle ya chambre criminelle ya nag méngoo ak cour d'assises ab procès bu nar a doy waar ci Ousmane Sonko Sud Quotidien daal dina ma moom Ousmane Sonko day yóbbu nañ ko ca chambre criminelle ba coowal Sweet Beauté la moo ko fa daal di yóbbu maître El Amat Thiam consultant ci droit ne saa si tembe kay kenn mënagul xam kañ la procès ba di tàmbali ndax nag parquet bi ci boppam mooy fixé date ya l'observateur ne coowal Adji lii nag mooy doggali ba ndax bu ngeen fàttali ko lu ne jaar na fi ab coow la boo xam ne ñu ngi ko tàmbalee ci viol bu nu jiiñ Ousmane Sonko ji nit ko ab menace de mort tey jii mbir ma ma nga ca chambre criminelle la ñu war ko fa attee le quotidien ne position assise moom la Ousmane Sonko ak Adji Sarr jël di yéenekaay bi ne ma daal ci mbir mi moom it ca chambre criminelle di jëm direct news ne ma ma ngay dëgër de te ma ngay ñaaw de këcc sax la def ci kanamu Ousmane Sonko ndax nag dossier bii ña nga ko war a attee ji yéenekaay bi sampub laaj ndax buy dem ca tribunal ba ñu koy attee day libre wala day jaar enquête quotidien ne déet mën naa libre dem wuy ji moom Ousmane Sonko direct ci news ne gars yi nee ñu moom Ousmane Sonko mën naa tàbbi kaso laata procès bi de bu nekkee ni nag bés ba ñu ne ci lañ koy attee moom Ousmane Sonko nag teewul ñu war koo téyendi nag ngir mën ko yóbbu directement tribunal attee ko yéene kaay bi ne ma ay awokaam ci boppam ña ngay tàmbali riposte ba fas yéene nag jaamaarloo ak attekat bi ndax nee ñu coow li ci boppam lu ko andi fii la ñu xamul Walf Quotidien ne ma coow li coow li coow li ci réew mi ndax nag saa si témbe xeex gu ne dina amati ci réew mi Sonko nag jurisprudence bu Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall mbaa du ko laal Jean Charles Biagui analyste politique ne en du yomb de buñ ko bëggee tëñë tëñëxee moom Ousmane Sonko def ko ba yub sarax bi nin defoon Karim Meïssa Wade Khalifa Babacar Sall bu ñu koy rendi faaw mu yëqu na mu yombee ci xaaf yombee ko ci Karim Meïssa Wade mënta yombe nii ci Ousmane Sonko fu ne ma taxaw leen juge ba nga xam ni moo koy atte turam xam nañu ko l'enquête quotidien ne ma bu toxique bu nar dugal ci sénégalais yi ci guuta ci tuñ tuñ réew mi quotidien ne ma en tout cas mbir Ousmane Sonko ma nga ca tënku cib atte bi bés bi la journée coowal salon moo yóbbu ca chambre ya maître El Hadj Diouf ne ndam daal lan ca am ay avocat Ousmane Sonko di xool nees def ba procès bii du daal di antu maître Étienne Dione ci les échos yéene kaay ne coow mooy dan doon xaar ab bàyyi noolu ya la jagat-jagatee coowal Ousmane Sonko lii nga xam ne sosi neen la andi ko ba ci chambre criminelle yi moonu jaaxal maître El Hadj Diouf ne en tout cas Adji moom la muy sàkku mooy média yi teg procès bi ñëpp di seetaan maître Ibrahima Mbengue avocat Ndeye ma bëgg xam dëgg-dëgg mooy ci lan la juge bi tënku ba ni tey jii dañuy atte Ndeye Khady Ndiaye ak Ousmane Sonko 24 heures yéene kaay ne ma réew mee toj réew mi nag fii la toll bu ñuy jëlee coowal Sweet Beauté di ko yóbbu di ko atte réew mi mi ngi ci nit koo xam ne dafa yore ab bataaxalam bind ab téeréem ñii mu leen cay sanni xeer ñi ay fleur saa si tembe nag dafa am nit yoo xam ne dafa mel ni nag dogalub jàmm wala dogalub dal ci réew mi seen loxo la tàbbi lan ñu nawe woon rew mi cib série akum néew mu daal di tàbbi géej ñu daal di fas yéene jaawaar lay lépp ku ci nekk nag dox ci say intérêt fii la réew mi toll vox populi ne sëriñ Mourtala ibnu sëriñ Abdou Ahad Mbacke daal xamal na président Macky sal ne ko réew mi bañ la koy jox ci jàmm lañ la ko joxee bañ la koy jox yow président Macky Sall cib dal lañ la ko joxe bañ lay jox réew mi it ñum lañ la ko joxee ngalla waaye delloonu ko ci jàmm dellooñu ko ci dal delloonu ko ci ñum yéen kaay bi mel ni ku naan maan ndax jàmm joojee dina yomb ndax saa si tembe gars yi coppet ci bii bii ni ko rajax lan dëkkee de bu ñaar génnee ñetti dugg rappeur bii di nit dof ci boppam daal dinañ ko yóbbu ci gardaaw ma nga ca sûreté urbaine bu ndakaaru te it lañu teg ci ci ndoddam daal di mitti lool libération yéen kaay ne ma procureur ci boppam moo sàkku ñu indi nit dof ndax nee na nag dafay woote fépp ci réew mi waaye itam di menacer ay magistrat laas yéen kaay ne ma réew mi tënku na gannaaw politique bi chauffeur si daal dinañuy tënk réew mi taxawal ko ca Kër Massar ña nga xam ne ñoo fa doon jël woto dañ leen dàq ca Ziguinchor moom daanaka dara doxul ca département bu Mbour mu am ralenti ca Fatick moom daanaka ñëpp topp grève lu leen saf du teree dogal yi nu jël ci réew mi dañ koy yeggali moom la soleil yéene kaay ma Amadou Ba nee bépp dogal boo xam ne day jëloon nañ ko ci conseil des ba nañ ko daal di matale bu kenn may leen transporteurs yi bu nu weñ ba ñu daal di ciy deltu ginnaaw tribune yéene kaay ne ma Moussa Sow ak Biram Tine ña nga xam ne ñoo moomoon ñaari oto ya defoon accident ba ca sàkkal daal di leen di téye boo moytul kaso la ñu jëm juróom benn weer jàpp benn atu kaso boo moytul daañu ko tëdd libération yéene kaay ne ma scandale am na ca mairie bu ngàcc naw de mairie bu nag yaay Fatou Diagne yéene kaay bi ne ma ay marché yoo xam ne dañ ko doon jébbal BND service du ca def lenn wul nag dañ ko doon jébbal xaalis ca gannaaw société ba nag ñu ne baaba Babacar Ndong moo fa nekkoon ab assistant communautaire ca mairie ba la nekkoon nag responsable des marchés ba ñu ko jàppee moom Babacar dafa daal di xam le ni lan koy tuumaal dëgg la waaye nag dafa ne lu njiit njaag maire ba di it coordonnatrice bu promogem bii di yaay Fatou Diagne moo ne ci ginnaaw moo koy def bu xaalis bi génnee mu am cay commission coow la libération yéen kaay ne ma yaay Fatou ci boppam moo feeñal boppam ab plainte ngir ay données yu ñu effacé gaaya enquête ba yem ci lii tribune sport ne ma sunu gayndey tey nërmeelu nan di ngi démb ci chan bi benn bal ci dara lañ leen dóor ñu fas yéen nag wuti seen qualification ci ñetteel bi jongante sunu lamb ne ma Zarko ak Ada Fass at dootuñu tegati seen tànk ci lamb ji bira seen jiital CNG ne lu waroon am la ndax cib sursi la ñu nekkoon saa si tembe nag la ñu bëgg mooy kenn du defati lu la saf ci biir lamb ji respecté waxtu yi respecté adversaire lu ko mooy ñu dàqee la lamb ji ak lu mën a am mbokk yi nañuy ñaan jàmm te jàmm